salaamaaleykum soxna si nuyu naa la bu baax a baax man de dama am problème bu ma tiis bu mettee metti metti léegi nag man yow rek laa si yaakaar di yaakaar ne su ma la ko envoyé boo ko publier naa ci am solution dama nekk ak sama borom kër am nañu ñetti at léegi ñetti atu sëy benn doom bu jigéen rek lañ ci am nag waaye daal lii sama problème daal mu sonal ma guddi ak bëccëg suba ngoon mooy sama jëkkër jëkkër dafa am feebar bu metti mooy day gaaw mën na nekk moom ñuy sëy waaye day gaaw a daanu mu nekk nag lu metti nag ma koy dund guddi ak ngoon mu nekk jëkkër ju baax nag jëkkër ju ma yërëm mais nag loolu tamit ku xam sëy xam ne loolu ci la bokk ni ku nekk yaa ñaan nga boo nekkee ci néegu sëy am ci bànneex sa jëkkër ji la satisfaire ci kaw bi nga xam ne doo toog ba sa xel du dem ci keneen wala doo ci nekk di ci xalaat keneen man nag moo tax ma ñëw ci yow ku am ndimbal rek ku xam sëriñ wala ku xam kenn koo xam ne rek suñu fa demee tey suñu aajo dina faju ñu dem fa ndax bëgguma njaaloo bëgguma def na ko su dul noonu nekk na lu metti nag nekk ak sa borom kër ngeen nekk du yëg boppam wala bu yëgee boppam day gaaw a daanu ba yow li nga soxla yow du la ko mën a satisfaire nekk na daal lu metti may ñaan na ku ci am ndimbal rek ak ku ci am lu ci ti def rek nga dimbale ma ci ndax yittewoo naa ko trop waaw yittewoo naa ko trop jërëjëf soxna si